jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias mbokk yi teewlu xibaaru digg bëccëg bi euh, ponk ci gën a fës coordinateur bu parti démocratique bu Sénégal Omar saax euh, tey mi ngi ca parquet ba defeere nañu ko tey ci suba moom nag ci gaaw ji euh, lanu ko jàppoon li ko waral ay kàddu la yëkkati ñu jàpp nag ni tooñ la jëmale ci njiitu réew mi yi sàll loole aju nag ci mbirum Lamine Diack lu jëm sax ci mbir moomee ñett taskatu xabaar yu dee média ñoom it dikk di division des investigations criminelles woolu na leen dinañ ci jokkoo ak euh, sunuy ndaw yu nekk ca tribunal ak euh, dikk lu jëm ci Lamine Diack ba tey moom day mbill gi euh, tey jii la xëy janoowaat ak juge ba attekat ba ca France mu nekk ñetteel bi yoon ñu di ko déglu Malick gàkku moom mi amal ab tournée ca Ndukumaan nee na nag lu jëm ci mbirum lamin Diack moom mën a guccee yëy ji yàbbi waaye lu mu ca mën a doon financement parti politique di kopp xëy leen ni financé dañ ko war a xoolaat ci Sénégal sunu gan maître Abdoulaye kanam tuuti beneen ponk ñeel nag ta ñeel uh, lii di football ñu wax nag ci ñaari nërmelu yi nga xamante ne nii AS Douane am na ko ci juróomeelu journée bi uh, tey ji nag ñàkkati na ci kanamu Casa ñaari bal uh, ci benn ñoo sportif bu gore ak Wakaam ñoom dañoo témboo ndem ndam demul ndam dikkul ku ci ne benn bal nga am daañu waxeet ci xibaaru biti réew yi ñeel nag Michel Platini ak Joseph Blatter ñoom nag fi mu ne nii nañu leen juróom-ñetti at yoo xamante xamante ne nii euh, duñu ko laaleeg lenn lu jëm ci wàllu football euh, comité d'éthique bu FIFA moo jël boobee dogal mbokk yi euh, ponk yaa ngi nii yaatal gi léegi léegi. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Future euh, Média niñ ko waxee ci ponk yi coordonnateur bu parti démocratique bu Sénégal Oumar saax defere nañu ko ca parquet ba loolee tey ci suba la xew euh, ca tribunal dañu fay fekk sunu euh, ndaw moom nag moo ñu teewal foofu may mun a njaay ñu ko waxee rek ca tribunal Maymouna bu dee mu mi ngi ci bu mu jokkoo gi Maymouna Ndiaye maa ngi leen nuyu. circuler on nous interdit li ma la posé li ma ci wax yëpp aw mhm. mu mel ni kon may euh, Maimouna mi ngi ci buumu jokkoo gi bu dee jàppandi na euh, Maimouna euh, maa ngi lay nuyu nuñ ko waxee rek kon Oumar saax daan nañ koy déféré ca parquet ba loole nag gannaaw kàddu yi nga xamante ni yëkkati woon na ko a nuyu naa la. mu mel ni am nañ tuuti jafe-jafe ci buumu jokkoo gi. Euh, kon mu mel ni am na tuuti jafe-jafe ci buumu mu jokkoo gi di ñàkk ñu waxaat ak moom may Maimouna Ndiaye ma nga ca tribunal loole nag aju euh, ci Omar Sarr mi nga xamante ni xëy na nu ko euh, déféré loole yëpp nag aju ci mbirum lamit jàkk ndax ay kàddu la nu yëkkati ñu jàpp ne nag tooñ la jëmale ci njiitu réew mi mag yi Sall ndax am na ñetti taskatu xabaar yu D-Média ñoom it woon nañu leen ci division des investigations criminelles Mame Biram Diouf moo fa teew Mame ngi lay nuyu chef de l'État euh, fi mu toll nii euh, militants yi mobilisé wu nañu fii ci camp bu tribunal bu Ndakaaru euh, mën nañ ci lim ñoom Farba Senghor Madické Niang Woré ak kenn ci avocat yi lañu nekkal nii muy maître Amadou Sall moom nag liñ ko laaj rek mooy affaire bi nan lañ ko gisee mu ne daal affaire bi séquestration arbitraire la maître yaa ngi direct ci télévision Futurs Médias lan nga gisee affaire arrestation. waaw waaw waaw li ma ci li ma ci li ma ci li ma ci li ma ci mën a wax rek mooy li ma ci wax ba pare lépp euh, li am ba léegi ci jalgati yoon la. ndax euh, Omar Sarr député la député assemblée nationale charte réew mi dafa wax ne que assemblée nationale su nekkee ci section. kenn mënta topp ab député file ak euh, bureau asaba assemblée euh, mayeewu ko or Umar député la assemblée mi ngi ci session te mayewuñu ñu jàpp ko donc di ko déglu sax jalgati yoon la ñuy wax nag que cour pénale internationale dafa wax ne su dee ay autorité dañu séquestrer ab citoyen d'un pays cour pénale internationale dafa compétent et ñun du ñu hésité benn yoon nag képp koo xam sa loxo dugg na ci ak ko mënti doon ngay ngay ngay ngay ngay euh, gendarme ngay alkaati ngay commissaire ngay simple alkaati wala ngay ministre ngay procureur ko mënti doon képp koo xam sa loxo dugg na ci jalgati yoonu Sénégal du ñu hésité benn yoon yóbbu la cour pénale internationale parce que tey jii dañu tollu àdduna bi dafa tollu foo xam ne kenn ku ci nekk sa responsabilité bopp la dañu dañu gàll ci sa ndodd ay ay ay responsabilité soo ko defee alhamdulilah soo ko defal yoon topp la merci continué waaw Maymuna Euh, kon may a ñu lay euh, jaajëfal bu baax yaa ngi fare woon foofee ca tribunal euh, aju nag ci Omar Sarr mënu xëy kon déféré ca parquet ba li ko waral muy kàddu yooyu nga xamante ni yëkkati na ko ñu jàpp ni nag tooñ la aju ci mbirum lamin Diack ndax yéy na yàbbi jëmale ci njiitu réew mi la ñu wax Macky Sall ci loole sax la ñuy des di wax dañuy dem fële tamit ba division des investigations criminelles ndax am na tamit ñetti taskatu xabaar yu dee média yoo xamante ne woon nañu leen ci mbir mi Mame Birame Diouf la ñuy fekki foofu maam bi xam nuyu naa la maam biram bu dee jàppandi na nga wax ñu rek euh, li nga xamante ne nii euh, fi ne moom la ñu mën a jàpp kon ci xibaar euh, jëm ci ñetti taskatu xabaar yooyu nga xamante ne fare nañu ci dee médias ñoom it ñu woolu leen ci division des investigations criminelles. jërëjëf soxna Fatou Kiné ni nga ko waxee kon journaliste yooyu nekk ci groupe des média ñett ci ñoom ñu woo leen ci division des investigations criminelles. Euh, ñu ngi fi euh, ñoom nag euh, kon ñett waxtu ak genn wàll ba diir boobu nga xam ne ñu ngi fi toog ndaxte agsi nañ fi neuf heures demi ci ñett waxtu ak lu tegal yooyu kon kenn dégluwu leen ku ci nekk ci ñoom di Pape Bess Diba Ndeye Astou Gueye ak it nga xam ni moom mooy Mouhamadou Mansour Diop Euh, ku ci nekk ko ñu dugal ci euh, ci ab bureau euh, ngir ab enquêteur waru kaa déglu waaye ci xibaar yi nga xam ni nag dañu kaa tataan ba léegi kenn dégluwu leen loole sax tax ba ñenn ñu nekk ci groupe des médias di wax ne xaar bi yàgg na booba léegi waaye teewul ñoom am nañ yaakaar que ni mbir mi fa mu mujj rek mooy seen mbokk yooyu ak suñu mbokk taskati xibaar yooyu ñu bàyyi li ñibbi seen kër ndax liggéey ga ñu def jàpp nañu daal amul leen loo xam ni lu ñaaw la loo xam ne ni am na ci Ah, kon ba tey ah, ci lu soxal mbir moomee am na ah, yenn ci ay fi ñëw ku ci mel ni ka nga xam ni moom mooy colonel à la retraite bii di Malick Cissé moom jiite parti de la solidarité et du développement moom nag euh, nee na ñëw na rek ngir xam fan la mbir mi toll waaye am yaakaar ci yoonu Sénégal ndax nee daal mu ngi xaar di xam fan la mbir mi di mujjee euh, donte sax nee na intimidation euh, doonu daal loo xam ni jàpp na ko ci. xam naa fi may daan rek fàttali ne mooy que nii fii ci dig nag boo xoolee mm-hmm. dem ak dikk bi jafe-jafe amu ci taskatu xibaar yi teew nañu fii ak doole lépp nag ngir xool bu baax ak yër liggéey bi fan lay mujj xam naa nag incha allah rek lu ci ruus dañ leen ko xamal incha allah merci. ñu jaajëfal bu baax maam Birame Diouf euh, yaa ngi woon foofee ci division des investigations criminelles aju nag euh, ci ñett suñuy naataango yu groupe euh, des médias yu ñu woolu ñoom it ci mbirum Lamine jàkk kàddu yi nga xamante ni jot nañu ko ca yëkkati ci loole la ñuy des di wax ak Malick Gakou mi amal ab tukkib nemmeeku ci Ndukumaan nee na nag moom lu jëm ci mbirum lamin Diack du yëy yàbbi ci fi mu ne nii mënagu ko waaye lu mu ci mën a doon rek danoo war a xoolaat bu baax a baax koppar yi yi nekk ci Sénégal naka noonu it ñu tëral ab charte boo xamante ne ni dafay tënk doxalinu parti politique yi ñu teewlu ay kàddoom dañuy wax ne ndax xaalis boobu lew na et eh, mën naa wax ne parti bu nekk mën nga wax ne xaalis bi ngay tuddee dafa lew waaye li wóor mooy Sénégal toll nañu niveau boo xam ne nii war nañu egg foo xam ne nii parti politique yi lépp lu ñuy jaay ci xaalis war nañ ko mën a saytu war nañ ko mën a prouver loolu nag amagul loi waaye démocratie boo xam ne day dox egsi ci niveau bi nga xam ne nii niveau exemplaire la comme Sénégal fi mu egsi ci démocratie en Afrique et dans le monde jaadu na pour que financement parti politique yi ñu leeral ko financement bi nag ñëpp xam nañ ne dafa bëri ay sources au delà cotisation cotisations au la de legs au la des dons il est arrivera un moment où parti politique yi état bi war na jël xaalisam jox ko parti politique yi waaye état aussi mënul jël xaalis rek di ko jox parti politique yëpp ñaata parti ñoo fi nekk dañoo bëri je pense que li ñu war def mooy élection yi di ñëw ele parti politique yi dem ci ba pare ñu xool eh, parti yi nga xam ne nii ñu ëpp doole am nañ représentation à l'Assemblée nationale wala am nañ taux de croissance boo xam ne nii wala taux de participation électorale boo xam ne nii mën na leen permettre ñu engagé au minimum 2 pour cent 3 pour cent ou 4 loolu ay waxtaan la buñ ci waxtaanee ba pare parti yi nga xam ne nii am nañ représentation nationale parti yooyu état bi war na leen mën jàppale parce que parti politique vocation mooy liggéey pour la nation bu état bi encadré parti politique yooyu dans bien évidemment dañu war a contrôler ressources yi parti politique yi dépensé te loolu aussi mooy démocratie loolu mooy yoon parce que parti politique lépp lu mu pour réew mi waa réew mi war nañu ko mën a xam lu jëm ci wàllu financement ki nga xamante ne nag moom mooy Lamine jàkk euh, ci kàddoom dañu ne euh, dafa ne am na ay parti yoo xamante ne financé na ko euh, ci 2012 ci campagne bi nga xamante ne nii ñi ngi ko doon amal ci atum 2012 loole nag tax na ba ay yéenekaay ca France waxoon ci lu ni mel tey jii nag ñaar ci yéenekaay weddi nañu ko bokk na ci taskatu xabaar bi nga xamante ne nag mi ngi fare ci yéenekaay bi ñu duppee l'équipe nekk ca France moom nag leerlu na nee na mësta wax ni kii di Lamine Diack jox na koppar Euh, njiitu réew mi euh, Macky Sall ci atum 2012 ca ba muy campagne waaye nag li leer ba leer mooy Lamine Diack ci boppam ci kanamu enquêteurs yi moom wax na ni am na koppar yoo xamante ne jox na ko ñenn euh, ci kujjeeg politique gi ci atum 2012 mu nekk ay kàddu yoo xamante ni nii dénk na ko suñu naataango yu rajo Futur Média. ñun xibaar yi ñu joxe ñu ngi ko jëlee ci ay documents yu leer documents yooyu sax euh, mu ngi béral bu baax li lamin Diack daal di yeggee ñii di enqueter yi ak it ci kanamu juge yi. ci documents yi ñu ngi ci jàng ne Lamine Diack musul tudd turu kii di Macky Sall ne daal di na koy jàppale ci élection 2012 yi. loolu la lamin Diack daal di yeggee ci kanamu enquêteurs yi. li ñu béral ci suñu xibaar yi dañu wax ne bu baax ne lamin kii di lamin Diack. dafa daal di jàppale opposition Sénégal ci atum 2012 loolu la Lamine Diack di yeggee enquêteurs yi. pour yoon nous attendre. waaw est-ce que daal dinañu yaakaar yeneen xibaar yu gën a ñoŋ ci mbir mi. waaw ñu ngi koy yaakaar bu baax ndax euh, kii di juge bi nekk na juge bu nga xamante ne dafa am xarañte ak expérience bu mag euh, ñu ngi yaakaar ci moom ab l'enquête bu gën a yaatu ngir mu gën a indi leeral ci mbir mi. Euh, mu nekkoon nag taskatu xabaar bi ci wàllu tàggat yaram kon fare euh, ci yéenekaay bi ñu duppee l'équipe euh, ca France Stéphane Manda lay wuyoo di nag kàddu yoo xamante ne nii doon na ko dénk suñu naataango yu rajo Futurs Médias mu weddi nag li ñu ko waxal te muy nag Lamine Diack jot na koppar ki nga xamante ni moom mooy Macky Sall nee na moom lu ni mel amul waaye li leer ba leer mooy Lamine Diack ci kanamu enquêteurs yi moom wax na ni am na koppar yoo xamante ne jot na atum 2012 lu jëm euh, ci Lamine Diack ci boppam nañ jàpp nag ni tey ci suba euh, mu ngi doon janoo ko àttekat ba ca France bu nekk nag ñetteel bu yoon ñu doon ko déglu moom euh, Lamine Diack Lamine Diack kon ma yoroon nekkoon président bu IAAF nekk nag kuréel gu mag nga xamante ni moom moo ngank wàllu athlétisme ci àdduna bi ñu toppee ko nag wàllug gar la ko toppee waaye te xaalis bu lewul Euh, ñuy fàttali tamit euh, nii Oumar Sarr moom mi nga xamante ne nii jàppoon nañu ko ci gaaw ji euh, woolu nañu ko woon ca tribunal mi ngi dañ ko defeere kon ca parquet ba xëy doon janook attekat ba war a nag leerlu ci kàddu yi nga xamante ne moom it yëkkati na ko moom Oumar Sarr jëmale ci njiitu réew mi Macky Sall te ñu jàpp ne ab tooñ la loole aju ci mbirum lamin Diack ba tey sunu gan waxoon nañu ko ci ndorteelu xibaar yi di maître Babou moom la ñuy dalal fas yéene nag waxtaanee lu jëm ci mbirum Lamine Diack Babou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Adja. maître Babou ni ñu ko waxee rek euh, mbirum Lamine jàkk euh, tey jii euh, mooy sa moo waral sa teewaay fii waaye ci njëlbeen laaj bu njëkk bi ñu la laajee ci mbirum Lamine Diack yow danga ne woon doo ca mën a gum yey yàbbi ndax nekk na xibaar boo xamante ne ba fi ñuy waxee ak yéen francais français yi képp ñoom ñoo ci des di wax lu waraloon sa sa sa sa position boobu ca njëlbeen. Ah, bala ci loolu nga may ma ma sànni. benn kàddu ci mbir mi Lamine Diack sénégalais la ah, doomu réew mi la li tubaab di wax digne fis du pays moom la kon nag li dal ci koom mënuñu lu dul maslawu ko te ah, ànd ak solidarité sénégalais yi war nañ koo am dama dégg ñuy critiquer le chef de l'État ni jox na ko médaille su lamin Diack amul médaille kan mooy war a am médaille ci Sénégal ça n'a rien ak mbir bi bi loolu jógee itam lii am ah, Lamine Diack am na lum ci waxaat wante foog naa ni am na occasion pour moom Lamine Diack weddi teggi tuuma ni muy teggee tuuma mooy lenn benn wax na ni opposition opposition Sénégal ku ko dégg xam ni ñett wala ñeenti kàngam yu mag ñoo mën a jël réew mi bokkul ak kàngam yi nga xam ni ils se sont présentés pour am ay 1 pour cent ak yooyu donc wax ji ça concerne au moins trois ou quatre personnes benn bi mag yi Sall seetal nañ ko beneen bi ki des Moustapha Niass ci kàngam yu mag yi la alors euh, euh parti socialiste ci kàngam yi la pour ñu nekk premier tour su dee 2009 Khalifa Sall ci kàngam yi la. Euh, ñi demoon Pape Diop ci kàngam yi nee donc léegi puisque moom dem na ba génne ni Macky Sall le monde leeral ko mais terewul le flou mi ngi des na yeewi nit ñi na yeewi Sénégalais yi ci njëriñu réew mi la comme on dit la balle est dans son camp. yow euh, na wax ma eggale ci phrase bi rek nga baal ma parce que c'est important. Mhm. na wax ni diw laa jox. su nee diw laa jox wax ji leer parce que c'est lui qui a ouvert la boîte à Pandore comme ni ñu koy waxee na wax ni diw laa jox mbir mi daal di leer ñu paase ci leneen parce que lii euh, lu metti ci réew mi la luy gàkkal réew mi la ci bitim réew ak biti. Euh, kon daal li ci des. li ci des pour répondre à votre question. Mm-hmm. Euh, ci loolu laay des. waaw balaa ngay répondre sama question nee nga euh, moom Lamine Diack ci boppam moom moo war a taxaw wax ne diw laa jox. te tey ñu bari maanaam faree ci ku jëkk politique gi ne nañ Macky Sall moo war a leerlu kon ci say ni ma la déggee nga wax nekkul kon bu boobaa Macky Sall la ñu war a xaar ay leeral ci moom mais plutôt Lamine Diack moom moo war a wax ni diw laa jox. mais dans le camp parce que li wala di wax naa moo dóor moo tuli su doon suñu métier dañuy wax actori incumbit probatio kuy wax dara kuy jëf dara yaa war a indi firnde yi soo ko indiwul keneen du ko indi parce que moo wax léegi li ma bëgg a wax ci mbir mi pour répondre à votre question mhm, sérieusement mhm. man mbir mi bi mu jógee dama ni dañoo war a tey ndax la monde bi génne information bi fekkiwul réunion ba dañ ko jox information ay firnde mu jëg ni tuy te même ñun ci suñu liggéeyu avocat dañuy wax ni PV de police yi ñu la jox simple renseignement la même su nekkee ci kanamu juge wala ci kanamu procureur wala ëttu attekaay renseignement rek la pourquoi yow vérifier woo fee yooyu ndax am na yéen journaliste sax loolu ngeen wax les faits sont sacrés bala ngaa mën a wax les faits génne ko sukkandiku co da nga koy vérifier ndax faits yi ndax faits mën nañ koo tourner mën nañ koo manipuler mën nañoo def lépp yow nag nga jóge fële rek dagg ca lang ga nii lii la la monde wax ak lu monde nekk journal sérieux sérieux mais monde dañuy critiquer ay kii yam la preuve noo jàngatee seen deltu gannaaw tey ci ci mbir mi mais seen deltu ginnaaw mooy juum nañu juum nañu ba xalangu taq nañu nag deru Sénégal kooku du man maa koy régler autorité sénégalaise yi xam na fa ñuy jaar parce que ku génnee une fausse information tu en payes le prix diffamation soo déggee ñu koy wax ci nit ñi puis bii moo gën a gaaru défend lu ñuy wax dañuy reprocher toujours journalistes yi ni ko balaa ngaa wax dangaa waroon a vérifier ndax li ngay wax dëggu la moo tax yéen ngeen di wax ci seen liggéey moom lañ leen di jàngal si si les faits sont lu sacré mooy lu dañ dangaa war a vérifier ba xam ni lii amul wala am na soog a nag mën a commenter donc fii li ma gis ci wàllu Lamine Diack journaliste yi juum nañu parce que dañoo gaaw ni réel daal di wax te vérifié wu ñu ndax source boobu source A la ndax lu dul deñ la def ci nag commentaire yu ëpp ñaareel ba opposition itam def na erreur bu rëy rëy rëy. muy lan bi mooy d'abord ñëpp war a dëggal ni. parce que dégg naa ci rajo bi may ñëw naa war a ñoo arrêté ma Samba war a ñoo arrêté ma Demba li wóor ba wóor mooy Sénégal opposition am na fi baat soo demee article 58 de la constitution jëmmal nañu opposition l'opposition a le droit de critiquer mu ngi ci ay liberté publique ndegam yow mi citoyen simple yaa am droit critiquer l'action du gouvernement waxatuma la ak opposition mais attention uh-huh. critique ak accusation ça fait deux. ban la ñu def opposition bi. wax erreur bi ñu def mooy man bi ma liiree ci seen journal ni communiqué bureau politique bi accusé nañu Macky Sall ba tudd de l'argent sale ba tudd de l'argent de la drogue du sport wax ju ëpp la est-ce qu'on peut mesurer les conséquences ci jëmmu réew mi ci personnalité président de la République ëllëg figurez-vous. que dans l'histoire récente mais les États-Unis am na un président bu nekkoon xaw ma ban pays Amérique latine Noriega mais États-Unis dañ koo jàpp ci affaire drogue te lii c'est une affaire internationale boo xam ni personnalité réew mi jëmmu réew mi lañu ñu gàkkal gàkkal bu metti heureusement heureusement nañ ko sant yàlla ka waxoon waxet Lamine jàkk jëkk waxoon intervenir ni waxatuma ko le monde teggi ko. est-ce que loolu euh, kàddu yi nga wax léegi que euh, ab kujje politique donte sax am na ñu baat waruñoo yegg fenn fi est-ce que li li xew nii ak Omar Sarr mën na justifier quand ñu teg ko loxo moom député bi nga xamante ni fi mu ne nii mi ngi nekk en session. mais évidement nañu ko defal présomption d'innocence parce que nit mën naa juum mais man waruma juum ndax loolu mooy sama liggéey présomption d'innocence nit bala ñoo wax ni moo def lii yoon condamné ko mais dana am ay présomption présomption mooy ay xalaat yoo xam ni war na mën a indi condamnation su loolu amee ay présomption des indices graves et concordants comme ni ñu koy waxee suñu liggéey moo tax procureur mën a jël su gisee ni ah lii de war naa mën a def délit wala crime mu ni naa ko yóbbu du tere waajee tooñ mais nee naa sénégalais bu raisonnable laa la wax de bañ a def politique affaire bi garaaw na benn garaaw boo xam ni waruñu woon tudd ci mbir mi argent de la drogue waruñu woon tudd argent sale waruñoo tudd de bien mal acquis ba tudd ci turu chef de l'État benn ki tudd turu chef de l'État Macky Sall xam na ni euh, juum na parce que maa ngi dégg léegi ci rajo bi naan non non dañoo wax ni candidat Macky Sall la mais le communiqué a dit dafa gagné donc candidat bu gagné loo doon yaay président ci turu président. war waruñoo tudd argent sale. bu ñu desee Oumar Sarr ci ci député ba mu doon tey jii mbalaanu kiir laayam tey luñ ci mën a wax. mais maanaam mais euh, Oumar Sarr du lever nañ immunité parlementaire depuis longtemps depuis longtemps moom ñoom ñeneen ak ñeneen ñeneen lever nañ seen immunité parlementaire te soo déggee yoon di wax maanaam kiir laay loolu pour permettre ko mu mun a def affaire liggéeyu député am puisque day am euh, immunité parlementaire loolu melul comme Sénégal yëpp. mais moom summi nañu kiiraayu immunité parlementaire am ba pare dégg naa tam ñuy tudd article 61 de la constitution parce que session mais n'oublions pas que c'est des faits de flagrant loolu tam débat la est-ce que ça s'applique ou ça ne s'applique pas. coow li coow li financement parti politique yi la. wax naa ko man keroog seen intervention nee naa mënul ñàkk ñu financer parti politique yi encore que am na lu ci code électoral wax. mais est-ce que jotul aussi ñu ñu ñu leeral ko. mais il faut une loi il faut une loi parce que bu leen fàtte nii président Macky Sall yàggul ah élection yee passé mais am na ñu waxoon ni euh, am na xaalis bu ñu ko joxee Gabon du amoon na coow li amoon na forage daal di xëddeen fëndiwu kon nag léegi gouvernement bi war na cee tirer les conséquences def une loi fixer financement parti politique xoolal France compte de campagne yu euh, nu mu tuddati compte de campagne yu Nicolas Sarkozy day dem ba conseil constitutionnel. amoon na fi problème ba ne dañ koy topp ah te am na toujours jusqu'à présent benn kaa boo xam ni mi ngi ci compte de campagne war nañoo xam foo xaalis bi jógee ndax xaalisu ger la ndax ku bëgg a dugg ci réew mi dominer réew mi il suffit ka nga jox xaalis candidat boo xam ni su gañee eh, wolof nee na ku la abali bët fu mu bëgg nga eh, foo bëgg lay xoolee. ku euh. joxe xaalisam soo gañee lu mu bëgg dana ko am Sénégal donc financement parti politique jot na. te lii war na tax immédiatement soit député yi def proposition de loi ou président de la république def projet de loi leneen it ñu seetlu ko muy toll tolluwaay parti politique yi ci Sénégal ñu bari jàpp ni euh, jéggi na dayoo euh, am na sax ñu ñuy wax ne jot na itam ñu ñu def audit jëm ci parti politique yi noo ko dégg naa ñu koy wax mais audi parti politique kooku moom euh, peut-être terme audit c'est pas bien placé ñu seet kay nan la ñu mën a wàññee parti politique ak critères yi ñuy fixé mën nañu ni par exemple ku wax sa parti politique soo demul élection benn yoon wala ñaari yoon ñu trouver euh, une solution. réew mu toll ni Sénégal parti politique yi euh, ni ma ko waxee. bari hmm. ba daanaka xayma gi jéggi na dayoo. Hmm. yow ci sa gis-gis réew mu toll ni sunum réew ñaata parti dëgg-dëgg la soxla ci ci xayma. mais ma man mii lay wax. Hmm. secrétaire général de parti politique la mais wóor na ma ni d'accord naa ñi ma xam bariwul. c'est un moyen d'expression c'est un moyen d'expression. am na ñuy def mouvement moyen d'expression la am na ñoo xam ni parti politique moo leen kii moyen d'expression la parce que nous sommes des hommes politiques mais nag dana laaj ay transformation yu bari ndax constitution moo dëggal parti politique ci article 4 parti politique association la comme ni ma Samba wala Demba amee droit def association ma euh, bokk lii wala laa bay ressortissant ma sàngam ma Demba noonu la nit ñi mën a defee parti politique mais mën nañoo jël des lois yu ko encadré ni par exemple soo amee association parti politique te demoo élection lii lay wax wala soo amul ñaari militant wala ñu ni région yu nekk war nga fa am au moins mille militants wala la la la et si euh, possible mais léegi daal euh, euh, régler ko jot na. jot na waxtu bi xoj nañu xanaa nga tënkal ñu rek très rapidement yi ñaari laaj la muy mbirum Lamine Diack ak li ci xew yépp wàllu ger tey ñu tudd ko ci suñu réew image wu Sénégal tey nuñ ko mën a jàngatee ci biti réew beneen mbir également ndax euh, Sénégal tey mën naa am gëdd ba ñu ko ba ñu ko joxoon waaye tamit ndax Lamine Diack tey fa mu yeggoon ndax lu bon bon icône la ci ci suñum réew ndax tey mën naa jugaat tey ba siggiwaat ci kaw ak li xew yépp pour Lamine Diack je peut dire que c'est un coup très sérieux donc yàlla rek a xam mujj gu rafet rek moo mën ndax ku dem ba am 82 ans ñu sargal la yéen waa TFM sargal ngeen ko ah euh, dem nañ fi ba ko euh, di ko sargal mujj gu rafet moo gën nañ ko ñaanal solidairement ba mu génne ci jàmm ak salaam nañ ko jox aussi droit bi mu am mooy présomption à l'innocence Sénégal bi wax ju jógee fit yi rëcc nañu mais nañu sant suñu borom ba ñaari yëf bi mu ñëwee tiitaange googu dañ na benn Lamine jaag ba ñu waxoon ni moo wax teggi na ni tudduma Macky Sall le monde mi un journal très sérieux ndey ji mbilli gi tey jii wax na ni image yu Sénégal ci ci ci ci àdduna bi kon tudd nañ ko ci wàllu guerre aussi non non kon léegi léegi kon léegi jeex na su dee njiitu réew mi la ñu tuddoon tuddoon ka waxoon ni maa waxet loolu kay kon wax ci jeex na nañu sant yàlla ci côté njiitu réew mi ba mbir mi yemee fii mais quand même on a eu des moments de frayeur ñu di ko jaajëfal bu baax maître Abdoulaye euh, baabu sant nañu la bu baax a baax ci wuy si bi mbokki xibaar yi dañu koy wéyal tàbb nag euh, ci tàggat yaram wax ci Michel Platini ni ñu ko waxee ak Joseph Blatter ñoom nag aj nañu leen juróom-ñetti at yoo xamante ne nii euh, du nu laaleeg dara lu jëm ci wàllu football kuréel gi nga xamante ne nag moom mooy toppatoo lépp lu jëm ci wàllu éthique bu FIFA moo jël boobee dogal kon dogal ba daanu na ndax fan yëpp ñi ngi doon la mujjee luy doon seen mujj kon tey leer na juróom-ñetti at kon la ñu leen at yoo xamante ne laa lekk dara lu jëm ci wàllu football ñu wax nag euh, ci AS duwaan AS duwaan nag moom nañu jàpp ni euh, moom euh, bi nekkoon champion en titre moom nag daal dinay nërmeelu bi mooy ñaareel bi yoon mu ñàkk nag tey ji ci kanamu Casa ñaari bal ci benn mu nekk nag jongante boo xamante ni jafe na lool ci ñaari équipe yooye ñi nga xamante ni ñoom ñooy gonek Demba Ramata Ndiaye moom jàpp na ne coach bi ne ay xalem daal def nañu la leen war ci terrain bi moo waral nag ñu am boobee jaloore dañ ci ànd ak Pape bu rafet spectacle ak ñett bi ci bile jongante match AS Douane ak Casa Sport lépp luñ ci dem xaar gis nañ ko ci Ismaïla Bamba Mariko moo njëkk dugal ci ab mbëkk bu rafet daal di trompé nag kii di Pape Diatta Ndiaye score bi noonu la wéyee ba ñu dem ci mi-temps bi bi ñu dellu see nag ñaari équipe yi ku ci ne di puus di puus ba ñu joué juróom fukki simili ak juróom-ñaar kii di Amadou Bouhari ci ab penalty daal di dugal deuxième but bi gannaaw ab faute de main boo xam ne am na ci biir surface de réparation ci benn défenseur bu AS Douanes daal di koy def. waaye replacement joueurs yi loolu nag moo jaxase ñi nga xam ne ñoo nekk champion à titre. clé match bi doon dara dañu ne woon rek euh, d'habitude équipe yi soo leen ñu jël leen ba pare ku nekk jël sa waay nga daw ak moom day métti trop si ñun day tax nga sonn mais soo sonnee kële dee na. mooy lii dafay suñu nga moo ne mooy suñu deuxième victoire dañuy débuté avec deux défaites ñu ñëwaat si nul ñu gagné encore xam nga amaat nul quoi ñu ñëwaat fii am suñu deuxième victoire te lii nag dafa ñu gën a modifié quoi. ñu ànd ak détermination ndaw Karim Séga Diouf yi Sylvain Badji jël bal bi dribblé ay jour ci la joxe bal bi ñu centré ko Daouda Ndiaye Guèye daal di lakk caax yi naam duggum Paul Émile Tendeng ak Thierno Matar Thioune ñii di AS Douanes nag am nañ seen ñaareelu défaite. le football c'est un jeu derrière, c'est un nag ni lay demee boo amee occasion yu nga xamante ni eh, dugaloo ko à chaque fois day tourné wu ci yow ñun nag eh, am nañu ñaar ba ñett wala ñeenti occasion yoo xam ne waroon nañ ko dugal dugaluñu ko moo tax it eh, waa Casa Sport am seen occasion ñoom dugal ko. le résultat, la victoire, c'est le, domaine, le domaine du vin. match bu neexoon nag bëri woon engagement ci stade boo xam ne xaw naa leer tuuti gannaaw ba ñu defee projecteurs yi ci kanamu supporters yu ale Casa ñu pousse seen équipe ba ñu am ndam. Pape Fara Gningue union sportive bu Wakam ak US Gorée ñoom dañu euh, témboo ndam damul ndam dikkul euh, ku ci ne benn bal nga am Alpha Thiam euh, moom nag moo daal di kon tiré but bu njëkk bi waaye nag ci njalbeen rek ay simili bi mu ci toppee ci la Sini Diagne moom daal di égaliser ñii nag wax nañu ci mooy coach yi di Malick Daaf ak Alimal ñoom nag yëkkati na seen kàddu wax nag ci jongante boobee nga xamante ni ñu ko waxee doxoon na ci diggante US Wakam ak US Gorée Pape Fara moo taataan seen kàddu. vestiaire je pense que li nga xam ne mooy suñu wareef ñun entraîneur naa ci lucide def correction yi ci war taxawalaat leen waxaat ak ñoom et puis ci biir match bi aussi bi ñu ko jàngatee def nañu ay changement yoo xam dem nañu ba génnee Fadel amatuñu sax numéro 6 indi ay risques et puis ñu égaliser je pense que dans l' du match. suñu jëlee point partagé ko Gorée mérité nañu parce que Gorée équipe bu baax la te mu ngi koy wane boobu ba léegi te tey tamit wane nañ ko encore su ma ñëwee ba am un point aussi baax na mais malgré que dernière minute ñoom la ñu égaliser ñoom amoon nañu pour égaliser avant parce que amoon ñoom ñoo njëkkoon am penalty yi ñu raté ko ci loolu ñun tam ñu gën a jàpp confiance ñu dem dugal but mais ñoom tamit amoon nañ ko parce que aussi ñun tamit des fois vigi duñu vigilance suñu défense bi aussi des fois des na loo xam ne aussi dafa comme lu mu wax moom sànq am na ay xale mais man par man maa gën a bëri yegg si nañu ci dossier bis bi dossier bis bi nag ñu jagleel ko wàllu euh, société euh, société nag tey daanu àddu ci li nga xamante ni moom mooy ila euh, traité yi soxal leen nag liggéeykat yi bu ñu demee ba retraité lan moo war a doon seen taxawaay ak nan la ñu war a teel a taxawee su ko defee bu ñu retraité dootuñu am benn jafe-jafe loole nag ñu jàpp ni liggéey la boo xamante ni dañ ciy sóobu ay at gannaaw ngay jël sa retraite nee nañ nag lu bon bon war ngaa am ab compte départ ñu tamit war ngaa def sa kéem kattan Euh, ba daal di euh, tabax euh, mu nekk nag loo xamante ne liggéey bu am solo la fukki ak juróom jàpp ñaar fukki at laata ngay jël sa retraite lay doon loolee bu ñu sukkandikoo ci secretaire général bu ressources humaines Alpha Abdoul Dia moo yëkkati yooyee kàddu waaye nag ci côté ñi nga xamante ni ñoom ñoo retraité nee nañ lu ni mel lu jafe la ndax léeg-léeg pension yi nga xamante ni moom lañu jot sax du doye lool tey tamit am na ay jafe-jafe yu tar yoo xamante ni ñi ngi koy jànkonteel ko Sénégal dossier bi dañ ci ànd ak Maymouna Ndiaye. dem retraite ndaw yi dina nekk seen xel naam sax fi mu toll nii amaguñu luñ ko mën a waajalee. dara amagul pour pour le moment yoraguma dara ci ci ci ci banque. waaw mais maa ngi maa ngi ci maa ngi ci xalaat bu baax a baax. nit bu bu yeewu bu jàng dafa war xalaat retraite ndax retraite étape adduna la. technicien bi bi mu demee retraite ak léegi am na ñaar fukki at. fi mu toll nii pension bi muy jot du ko may mu def li mu bëgg yépp ñu calculer ma suma départ à la retraite foofu sax amoon na amoon na amoon avec suma direction alors finalement ma attaqué leen tribunal ma gagné projet bi parce que dafa amoon une différence de calcule sa salaire de base bi nga daal liggéey sax duñ la ko jox donc ñoom dañu amoon seen problème boo xam ne ak loo mun a am tamit ñoom fii lañ ko arrêté soo leen laajee ñu ne ñun lii la ñuy fay lii la ñuy fay ci dara. xamoo fan ngay plaindre alors vraiment doy na waar. ngir nag moytu situation bile kontable bi dafa xamoon boppam looloo tax ci lu bëri mu ngi ciy yëngatu. maa ngi ci lépp lépp lu andi xaalis rek ay ganaar rek ay tout cela je le fais y a pas de samay doom laa fa def waaw ñoo ci yëngu. du retraite rek dem toog non. retraite nag ñu bari d'accord nañu ne foog ñu waajal ko. lool nag ci fànn yu bëri. boo paree li boo eggee retraite rek li ngay def yëpp day jeex yow nag nit ki ci xelam warul foog ni que moom li mu nekk yëpp mooy li mu doon def il faut mu nangu projeté wu ci l'avenir xool naka la mën a soppalee ni mu doon dundee jéem a def li ma wooyee bilan de compétence mooy xool lan la mën a def. ak lan la bëgg a def yan projet yi nga xam ne ba muy liggéey buggoon na ko def depuis longtemps mais mënu ko woon def mu jéem a si dès à présent renseigné wu. am kër yore compte boo xam ni di nga fa fekk dara loolu bokk na ci loo xam ni dina yombal retraite. retraite da nga koy préparer au moins quinze ans vingt ans balaa ngay jël sa retraite pour lan ma ne quinze ans vingt ans parce que soo jëlee retraite xaalis bi nga doon am li nga doon am da ngay jékki-jékki rek mu wàññeeku bu baax. mënoon nga am un million par mois jékki-jékki am deux cent mille francs chaque deux mois mooy cent mille francs par mois donc loolu danga koy sóoraale quinze vingt ans avant ngay jël sa retraite sóoraale ko nag mooy lan mooy d'abord xool naka ngay investir ci immobilier parce que lu ñu lu mu lu mu mënti bon bon bon bon nit kër moo ëpp solo kër mooy principale dépense donc yow da nga war a quinze ans vingt ans balaa ngay dem xool ndax mën nga am prêt immobilier nga xool naka ngay defee ci loolu beneen fànn bi nga xam ne laa bëggoon wax tamit ci retraite boo koy préparer mooy nga jéem tamit dajale xaalis tuuti même bu fekkee junni ngay def weer bu dee ci benn compte nga def ko. kon bokk bu leen ko yàggal ngir bañ lu leen bett jug leen ci ca ba muy teel. may Maimouna Ndiaye ci yu nu sa jata ci caméra bi cant ak ngërëm ñeel na leen euh, xët yu njëkk yu yéenekaay yi ak borom jëre ngeen jëf. jërë ngeen jëf àdduna tukki na du samay wax l'observateur moo ko xëy bind le quotidien faylu ko l'observateur ak le quotidien yëpp ñoo bokk nu ñu xëyee le monde s'effondre ñu des ak l'observateur ma ba léegi ci mbirum président Lamine Diack mi àdduna bi yëpp ne jàkk ndax tuumay corruption yu ñu gàll ci ndoddam journal bii di le monde mi bindoon yëf yi xëy ca dellu siwaat xëy ñu xamal ne président Lamine Diack ba muy wax tuddul woon turu Macky Sall daf ne la fi nekkoon ñoom la bi ko ci le monde yi ba ñu leeralee loolee ba noppi dañ cee teg di jégalu seen i lecteur ak képp koo xam ne tudd nañu saw tur ci article bi la Sénégal nañu le monde ragal nañu président Macky Sall ab deram ba mu set wecc ci réew mi quotidien nañu teg ci di ko jégalu bu rëy le soleil moom xëy minute par minute njuumte li nga xam ne wàllu monde def nañu ko ci mbirum Lamine Diack mi yéenekaay bi nañu dañoo njëkk bind ab article boo xam ne dañ caa def turu Macky Sall dugal ko ba mu neex leen ñu rocc ko dugalaat beneen article boo xam ne turu Macky Sall nekku ca enquête yéenekaay nañu mondial moom la journaliste yi le monde yi def le nañu le monde s'effondre àdduna tukki na Walfadjri nañu déet waa nguur gi kay la seen àdduna tukki ne ñoo jaxasoo ñoo jànnexe jamono ji jàpp ay journaliste di leen tiisal ak di leen fitnal kii di Omar Sarr Walfadjri nañu samedi ba léegi ma nga ca loxo yoon ci garde à vue ci la nekk populaire nañu ay du yam ci bopp borom ndax mbirum Lamine Diack mi nguur gi ñi mu ko bëgg sippi moo di opposition bi ak presse bi Omar Sarr populaire nañu waa division nañu waa dikk mu di division investigation criminelle ñoo leen convoqué tey ci altine ji ci yor yor l'observateur nañu ñetti journaliste la ñu Pabes Diba Ndeye Assou Gueye ak Mamadou Mansour Diop ñoom ñetti taskatu xabaar yooyu yëpp ci groupe des médias la nekk kii di Omar Sarr coordonnateur parti démocratique Sénégal observateur nañu moom gëmul mu gaaw a génn ci mbàll gi ni maître Sidiki Kaba ministre de la justice moo nar a gën a taral ay mbiram li mu wax moom ministre bi ci mbirum Omar Sarr moo di yoon dana cee def li war Abdou weesuwul Omar Sarr taxaw ci kanamu askan yu baalu leen àq Abdou Karim Sall ne ñu te nag ne askan yu xam ne kii di Omar Sarr dansé public la Souleymane Ndéné Ndiaye nañu ci yéenekaay bi ak lu mën di xew daal Macky Sall dafa war a bàyyi opposition bi muy xoqatal Abdoulaye Wade nañu ci biir l'Observateur yi des na ndax mbirum Lamine Diack ba ca kanam yuuxu dana jibe fuñ ko foogewul danañu déggaat yeneen tur kilifa ci réew mi réew mi quotidien mi laaj ndax Omar Sarr dee su ko ci kaddu yu bawoo ci Mamadou Diop Decroix mu nañu Macky Sall dafa war a leeral yëf yi ci kanamu sénégalais yi ci xët mu njëkk enquête dina kay ñoom waa front patriotique défense république nañu Omar Sarr ba muy wax waxut ak Macky président de la république waaye Macky Sall la doon waxal El Hadji Amidou Kassé ni ci xët mu njëkk la soloy ñi doon tëbaka dal ak di ngal-ngali di wax jamono ji gàcce war na leen ray la tribune moom xëy seeti Stéphane Mandari mu di journaliste Le Monde bi bind article bi yëngal réew mi Steph ne waa tribune waxi Lamine Diack yi yokkuñu ci wàññiwuñu Sénégal Lamine Diack mun nañu ko koy jooyle booy nga wàcc ndax li ñu koy toppee ay ati kaso yu bari mën na ko caa fekk doom ji Pape Massata Diack mun nañu mënee su ko gis waaye li mu war a leeral ci yëf yi bari na direct info nañu ma nga Dubaay moom Pape Massata Diack doomi Lamine Diack yi ñuy wër jamono ji ma nga ca Dubaay yéenekaay bi nañu am na ab commission rogatoire bu ñuy waaj a indi fii ci Ndakaaru Libération xëy dëggal xibaar boobee mu dib commission rogatoire boo xam ne waa Fédération internationale athlétisme ñoo ko di Macky ndimbal mësut a jógee ci Lamine Diack dem ci moom du ndimbalul xaalis du ndimbalul matériel la sañu waa convergence des cadres i gaayam yooyu la kàddu ñu ngi ko yëkkati keroog samedi ba ñu demee doon seetaan ay nit yu bokk ci kujje politique gi bëgg jóge ci li xew di taqal ak a tilimal derub Macky baa ñuy saltel fal giñ ko fal président Macky askanu Sénégal ñoo ko fal ci anam yu seet yu sell te jaar yoon yoon wi jëm ci dëkku Seydi Hadji si Sy radiyallahu taala anhu ca lay tegoo ak Le Soleil mi xëy dellu si ak ñun ci ngan nga fa président Macky Sall doon amal yéen a kaay bi dañu foofee fa la xamle ab autoroute bu yes boo xam ne war nañu koo tabax mu war a dox diggante Thiénaba Tivaouane ak Ndar Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine ni ñu ci populaire ñun Macky Sall la ñu àndal gëmmuñu rek nag ànd ak moom li tax ñu ànd ak moom moo di programme am moo ñu doy grand ñu président Macky Sall ak la mu def ca Tivaouane tax na dëkk ba nee na ko jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye yow it euh, jërëjëf jaajëfal leen yéen it fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu euh, sotti rédaction bi dina dellusiwaat 19h30 ak 20 eur ci yeneen jotaa